bismillahi irrahmaani irrahim rabbi srax li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu xawli bokk ñu déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu asbaxnaa wa asbaxal mulku lillah walhamdulillah wa laa ilaha illa allah wallahu akbar allahumma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 ni ma ko waxee woon mooy tey alayhi salaatu wasalaam mu ngi toll ci nag jeexal science yi laqad jaakum deux mille vingt et un Haji <laughs> Malick Maodo bu Haji Abdul Aziz moo ma koy waxee noonu kon nag Haji Malick <laughs> laqad jaakum deux mille vingt mi ngi jeex. mi ngi jeex ci kaw xam ngeen ne bu ñu résumé alayhi salaatu salaam ma nga tàmbali woon ca groupe 37 ñooña nayoon lool joxe lu baax jafe leen mu faj leen mu ñëw ci groupe bi ci teg muy groupe 38 muy ñoo xam ne yar seen doom ak sàmm doom yi jafe leen mu faj leen ñu wér <clears throat> ñoo ci groupe 39 mu ñoo xam ne seen diggante ak seeni dëkkandoo moo jagut mu faj leen <clears throat> ñoo ñël ko groupe 40 mooy ñi fonkul seeni wajur ak seeni bokk mu faj leen sallallahu alayhi wa mu ñëw ci groupe 41 mu ñu dënge seeni bokk di dënge seeni seeni wajur mu faj leen mu ñëw ci groupe 42 muy ñi nga xam ne seen xariti bàyyeek seen xariti bokk seen bokk yi lanu fonkul mu faj leen mu ñëw ci groupe 43 fekk ñu feebar feebaru mënuñoo jox cër boroom cër mu faj leen groupe 44 mu fekk leen duñu ormaal boroom xam-xam duñ ko wekk duñ ko jox cër mu faj leen mu ñëw ci groupe 45 fekk ñoom duñ sol seen dàll seeti ku baax teral ko mu faj leen mu ñëw ci groupe 46 mu fekk ñoo xam ne bëggante mu faj leen biñ bëggante ñoo ci group groupe 47 euh, ñu jëlaat audience beneen pour mu dafa leen rendez rendez ba faj leen group groupe 49 am feebaru di categorie seen nit ñi kii baax nag baaxut gëm naa gëmut pas-pasam leer naag leerut mu faj leen groupe 50 ñeme yàlla mu faj leen group bi mu mujj am démb mooy ñi nga xam ne dañoo ragal yàlla ba yaakaaratuñ mu delloo si leen mbokk yi boo ko dee seetlu boo boolewoon groupe yëpp day nekk mbooloo mu mu ne leen kaay ñu dem nag <coughs> kaay ñu dem nag ke ma yebaloon ci ne naa leen faj mu def seede ci li ma def daal leen dajale ñoom ñëpp malade yépp waaye yàlla nañ ci bokk ngeen bokk ca waay daldi di jóge ca këram nga ànd ak ñoom <clears throat> dem ba benn barab bu ñu wax biir Ali mu ne summi leen yére ni ngeen soloon ñu amoon caaya summi ko ñi am salopette summi waaw ñu am pantalon Europe summi garambu bu yeeg xaftaan yeeg débardeur yi yépp summi jigéen ñi bëgg a summi ku mu yëkkati loxoom ne leen déedéet yéen bu kenn laal yéreem nu faay ñëwee baax na day sànn affaire bi tàmbalee neex bu ñu sangoo ba noppi mu ne léegi nag amul sol yére dañuy woddu sàngu góor ñépp daal di woddu sàngu waaw mu dugg ak ñoom ca jàkk ja daal di kabbar jàng alfaati yàlla maa ngi lay sant mu ni alhamdulillah yàlla maa ngi lay sant yow mi ma sant liggéey bi jàpp ci ba mu sotti ma ànd ak malade yi ñépp wér maa ngi lay sant alhamdulillah rabbil alamina ba faatee jeexee mu ne xul yaayul yàlla maa ngi def fii déclaration mag ñi ànd ak man malaat yi yëpp li ñu wax mooy laa abudu ma taabudun dootuñu jaamooti ndax wér nañ léegi dootuñu jaamooti li gaa yi jaam ñi la déggalut dootuñu jaamooti ñi la ñi la déggalut li ñuy jaamu mukk tàqo tàggale ko nañu ñoom programme ba muy jeexal saar wa di bëgg a mu ne lakum diinukum waliya diin dem leen ñu dem daal ni allahu akbar siggi ne sami allahu liman hamida gaa yi ci ganam ne ko rabbana wa lakal hamdu <laughs> mu sujjóot daal di bàkk suñu borom subhaana rabbil ala daal di siggi sëggaat jóg taxaw jàngaat faate yàlla maa ngi lay sant maa ngi baamtu cant gi ba mu jeexee mu ne xul yaayu xul huwallahu ahad yow yàlla mi nu sant liggéey bii nu liggéey ko ba mu jeex yow rekk yaay yàlla yow la ñépp yaakaar yow nag amoo baay amoo doom amoo moroom amoo baay amoo doom amoo morom waaw wax naa ne noonu ñu ko al murshid allati yastarshiduhu al mustarshiduuna sëriñ Moustapha yàlla na ko yàlla yokk wér na mu ko defe ci kursu ba ren xul wala ahad jooju <laughs> seet leen ko ci whatsapp yeeg ñoom seen yooyu waaye tabarkal la pirima waaye daal <laughs> yàlla amul baay amul doom amul moroom loolu la wax keroog ca déclaration daal di génn jàkkaarloog malaat yi ne labbayka allahumma labbayka malaak malaat yi ne labbayka allahumma labbayka ndax wér nañ léegi ñoom ñëpp wér nañu ndeysaan yàlla nañ ci bokk nañ tam wér nag labbayka allahumma labbayka daa di labbayka laa sharika laka labbayka inna alhamda wa ni'mata laka laa sharika lak ne leen aji ñu dem malade yi topp ko ñoom ñëpp wér nag ku ci feebar nekkatu ci rek kàddu yooyu jolli picc yi naawandoo àll bi am écho yëf yi neex waaw picc yi di naaw waaw àll bi am écho ci labbayka ji ndax mbooloo mu ànd lañ ñay dox ëpp ña war booba kaar amagut di san ñoog labbayka ja ñoog labbayka ja ba ak si màkk teg seeni bagaas xëppoo ndox wuti kaaba ga ba ñu demee ñu ko juróom-ñaar yoon julli maqaamu Ibrahim bu ñu julee ma xam ba noppi nag mu ne mu ne malade yi il faut ñu jël vaccin <laughs> dafa am vaccin bu ñu jël fii benn ñàkk boo xam ne anti kufru anti nifaaq anti ria la tudd mala euh, maanaam vaccin bi day tax day fekk sa xol bi ci naafiq kéefër euh, euh, njistal mu daal di jël kii bi nag vaccin bi nag mooy zam-zam <laughs> allahu akbar mu jël góox daal di góoxaat daal di góoxaat malade ku ci nekk góox góoxaat daal di góoxaat ceetetetet waaw waaw mu daal mu daal ñaan nag ne yàlla ñoo ngi nii di di vaccin wu ñoo ngi nii di ñakku waaw yàlla na ñakk bi def effet ci ñun ilman naafian wa risqan waasian wa amalan mutaxabbala kuy naan zam-zam loolu lay wax rek gaa yi wax ko mu dem baagante ñoom safa ak marwa génn nopp luy fan dem mu naa fanaan faak ñoom xëy ilaa arafa mbokk bi mu àggee arafa mu wax ay kàddu yu gàtt yéen malaad yi yéen lay waxal waaw yéen malaad yi lay waxal feebar yi rekk moo ci des mooy bu nu jógee fii bu kenn lebleetib dërëm teg ca dërëm bu kenn lebleeti xaalis teg ca dara ak lu mu tuuti tuuti deux virgule cinq pour cent sax boo ko ca teg boo ko tudd ay dossier boo tudd dara boo ko ca teg soo mënee lebal waa ji cent mille buy fay fay la cent mille defal munoo ko soo ko mënee labal oto fu ngeen d'accordé baax na malaadi na ko samaan wa wataa mu ne malaadi yi su ngeen delloo di jëwante feebar yëpp ay siwaat hmm? mu ne maa leen ko wax bu ngeen demee di jëwanteek ko yàqantey der feebar yi ngeen yi ma leen fajoon yëpp ay dellusiwaat rekk waaye bu leen dem di gëjjanteeti gëjjanteeg xeex li koy waral du dara lu ngeen di jëwanteek yàqantey der bu leen ko def malaat di yëngal seen bopp ndeysaan mu ne bu ngeen ñibbee ngeen fonk jigéen ñi <laughs> bu ngeen ñibbee ngeen fonk jigéen ñi ngeen baal ma am jigéen ñi ne ko wax ko ca kaw yaa rasuulallahi <laughs> ndax ndax gis na boppam ci discours ba bu ngeen demee ngeen fonk jigéen ñi mu ne ko wax ko ca kaw yaa rasuulallahi damay jàngale nag dégg ngeen <coughs> waaw moo tax exemple yooyu ñu ko ciy joxe waaye jigéen ñi ndeysaan la discours bay gàtt gàtt jox na leen ca waar bu ngeen demee ngeen fonk jigéen ñi rekk waaye bu ci kenn yor jigéen muy xiif mbaa muy mar mbaa muy rafle mbaa muy tëdd biti seet tëdd malade yi àndoon ak seeni jabar seeni jabar ne li yéen a ngi ciy dégg ñu ne dégg nañ ci most nii lañ koy jëfe yonent mu ne yàlla mu ne mu ne malade yi ndax dégg ngeen li ma wax ñu ne ko waaw ndax tane ngeen ñu ne ko wér nañ mu ne allahumma shahid yàlla seddeel yàlla seedeel waaye keroog nag mu ne malade yéen ñu wér nag defal naa leen stage ci biir paj mi ba ngeen mën a faj ashaahidu minkum mën naa faj mu ne ha mu ne kon fal yu ballixi shaahidu minkumul xaayib yéen ñi ma faj ba ngeen ba ngeen wér dem leen faje ji rekk malade ya départ tasaaroo ci àdduna si ñee dem fële ñee dem fële ñee dem fële kenn ku nekk dem fenn samp fa sa sa sa sa sa clinique samp fa sa hôpital mooy suñ jàkk yi ak suñ jumaa yi ak suñ sëriñ sañ cay fekk ku ñëw ñu fekk ñu faj la wa tiini wa zeytuun ab fajkat la wa tuuri siinin ab fajkat la wa haazal baladil amin ab fajkat la moom bi mu fajee ba noppi laqad xalaqnal insaana fi ahsani taqwiim malade yëpp a wér summa radadnaahu asfala saafiliin ba mu des malade yi fonkul seen seen ràndiwu mujj nekk asfala saafiliin gën a feebar ci nit ñi alayhi salaatu wasalaam di joxe yëf yi jox ko ñam doon faj jox ko ñam doon defal formation ñu tasaaroo ci àdduna si nag nekk ay saxaaba bi mu demee moom yonent bi ñu ñëwaat ginnaaw gi saxaaba yi faj leen ñu nekk ay na bi saxaaba yi jeexee takk taabiun yi ne fi asalafu saalix ñoo ñu faj leen ñu nekk asalafu saalix salafu saalix nag moo dul jeex asalafu saalix moo dul jeex ndax ku fi fekkut yonent bi maanaam ñi fi fekk yonanti bi ay saxaaba lañ ñi fi fekkul yonent bi ay taabiuna lañ ñi fekkul saxaaba yi ay salaf lañu ñooñu nag ba yam la xiyaam ñooñu duñu jeex asalafu waaye nag asaalix la gaay la ca gaay yi di boole ñu continuer faj waaw léegi nag faj faj googu lañ tudde islaax dem leen ngeen faji àdduna si yëpp ndeysaan docteur yi tasaaroo def ay klinik hmm? def ay hôpitaux waaw jàkk yeeg jumaa yi école arabe yeeg daara yi waaw ku ñëw ñu faj la ba nga wér ni gaay yi wére paj mi dox nag ndeysaan mu sant ko ay gaay nag bi muy santaane paj mi it ñaar la ki nekk médecin ak ki nekk docteur xaw ma li may bëgg wax noonu koy waxee wala déet waaw ki nga xam ne moom ci mbirum docteur paj mu ndaw mi ci la yem ñoo ñay balliqu an ni walaw aaya wala wala wala wala bi aaya ñu ngi xam ne ay médecins yu mag lañ ñu ne la wax ash-shahidu fa li balaqi shahidu minkum al-ghaib gaa yi tasaaroo ñii def tabliix ñii di def daawa liggéey bi continuer di continuer ba mu agsi ci suñu continent bi waaw diine ji tàmbali fee dugg waaw uh-huh, médecins yi tàmbalee jóg waaw Cheikh El Hadj Malick faj na ay malade yoo xam ne kenn xamu nu toll bu wootee gàmm nga xam ci dara maam Sëñ Tuubaa faj na ay malade yoo xam ne kenn xamu nuñ toll bu wootee màggal nga xam ci dara Cheikh al Islam Hadj Ibrahima mañaas daa faj ba génn bitim réew continuer faj bu wootee gàmm nga xam ci dara waaw boo demee njaasaan njasaan ahlu kunti allahu akbar waaw albekaay mu mag mag ma ca tege ma ca tege ba ñii fi toog tey bu ñu wootee nga xam ci dara boo demee cene ba noonu ca góor gi amari ndak sekk boo demee jaamal loolu nga fay fekk hmm? boo ñëwee fii ci pencum laayin loolu nga fiy fekk docteur yi wuutu ko samp seeni clinique ak seeni école daara waaye ak seeni hôpitaux jàkka yeeg jumaa yi mbokk yi liggéey baa ngi noonu yonent bi bàyyi feeg ñooñu mu tax léeg-léeg kenn ñëw ci kenn ca ñoom ne ko damaa bëgg a bokk ci liggéey bi ndeysaan mooy taalibe bi <laughs> damaa bëgg a bokk ci liggéey bi mun naa mën ngaa lalaatub lal lalub malaat mu ne man naa ko kay mu ne ay ci waaw moo tax ndeysaan ñoom ñëpp ñu soxla li tudd ay taalibe bu dee ci yonent bi ay saxaaba lay soxla waaw tabarkàlla bu dee ci Muusa xawaar yoonu lay soxla bu dee ci ñoom ay taalibe lañu soxla yàlla ñu fekk déwénte weesu ko yàlla yàlla def jàmm ci réew mi réew yi ko wër ak suñu war a njëkk ak suñu fa war a njëkk te jotaay bi ndax suñu mbokk yi xëy ci xibaar yi ñu ngi ne tax yor seen i këyit bëgg la na firiñ fàncal xibaar yi ci tubaab